yëpp yëpp sama gars yi bëgg naa c'est Kenza Dip Gueule de Bichli alias Thiatou Dip élément label Sénégal Music Record avant tout dem leen abonné suñu page Facebook Sénégal Music Record di ngeen mën a am bépp info ci ñun en fait tey damay def benn vidéo thème bi nag moo mooy les problèmes dans le hip hop galsen on est en 2019 et bientôt 2020 Amna yo yoo ñu ngi koy gis diko rombu diko di té waxu ñu ci quoi c'est ça tu vois. Nous yo entraîné, xamante de ni waxuñu ci muy lan problème média yi média yo 100 hip hop galsen média yo sont hip hop galsen rek lay techs pour permettre nouvelle génération yi ñu mën leen promouvoir am télé yo xam clip hip hop galsen kese lay tech. comme par exemple la France BTV la Côte d'Ivoire hip hop TV télé yo des hip hop local rek les techs fofu lañu ñu pays yu bari rawee parce que ñoom dinañ permettre seen nouvelle génération yi di wane seen bopp wane seen talent surtout ci sous région bi dinañ mën a wane seen bopp wane seen talent bañ muy ba am porte boo xam dinañ leen mën a xam dinañ am porte boo xamante ne dañ leen di mën a xam dina permettre tamit gars yi nekk extérieur ñëpp mën a xam fii hip hop bi nan la fiy marché mën a xam fii ñun suñu hip hop nan lay demee parce que chaîne yi nekk fii Sénégal c'est rare ñu teg clip hip hop ci seen télé yi c'est rare ñu def ko c'est rare tamit ñu invité rappeur bu ñu invité rappeur c'est parce que clash dafa am wala rappeur bi di waajal événement bu rëy a rëy ñu invité ko ci benn trente minutes quarante minutes wala une heure de temps pare ci. am na rajo yoo xam ne tamit ñu ngi def job bu ci hip hop bi comme par exemple Vibe radio ay émissions comme aaru mbedd bi avec pap sidifa sur la 2STV ñoom ñu ngi def job bu ndax mais dafa des job bi dafa des bu baax a baax a baax pourquoi pas ñu créer suñu propre média réunir jéem a réunir ñëpp média boo xam ne day réunir ñëpp en plus di def ay clip de bonne qualité nañ waxante dëgg nag sama gars mënoo toog jàkkaarloo sa télé di seetaan clip boo xam ne amul budget xamoo nuñ ko tourné xamoo fuñ ko tourné nga ne danga koy seetaan war nañ gëstu lu bëree bëri ci hip hop gal Galsen bi. dafa des de trop sax sama gars yi war nañ cee gëstu lu bëree bëri bëri deuxième bi nag li may wax mooy problème musical la ak featuring di disons-nous la vérité mënoon yow nga ne artiste nga da ngay viser international nga ne doo di featuring pour lan artistes yu bëri dañ koy def xoolal nigériens yi ivoiriens yi par exemple waa Kif No Beat ñoom Kadris ñoom ñëpp dañuy def ay featuring da leen di permettre ñu leen di gën a xam di leen gën a ràññee kese. mais Sénégal fi dafa am ay clan artiste n'a duma def featuring ak ki duma ko def ak kële duma ko def ak ki mais assez lolu mo fi wara a jeex dafa wara a jeex loolu amu fi sens pourquoi pas ñu suñu rappeurs yi suñu artistes yi mënuñu song lolu di def ay featuring ak n'importe quel autre artiste lolu opportunité la da leen di jox porte boo xamante ne ñëpp leen di xam ñëpp leen di ràññee ñu leen di dégg fu ne opportunité bu mag la pourquoi pas ñu bàyyi loolu di bañ a def featuring ak kii ak kii bàyyi clan yooyu jël yooyu yëpp teg ko ci suuf suñu opportunité lañu war a xool par rapport à ça pourquoi pas mënuñu def suñu propre instrumentalu bopp parce que gis nañ fi Fata temps yu muy def rap mbalax mais gars yëpp dañ ko doon kale ay ñoom nit dof ñoom ñëpp kale ko dal ci kawam te booy xool léegi ñëpp moom la ñuy def ay axlu brique Omzo Dollar Dip Doundou Guiss extra gars yu bëri ñu ngi song Wally Seck pour mën a am un million de vues sama gars na leen waxante dëgg afro trap baa ngi ñëw pourquoi pas ñu song loolu ñeme loolu def loolu pourquoi pas ñun mënuñu am yoo xamante ne ñun ñoo koy defaral suñu bopp hip hop bi mën a jëm kanam hip hop bi bu jëmee kanam suñu bopp la jëmal kanam jëmalewul kenn kanam pour mu jëm kanam nag foog ñu nekk benn réunir. créer ay médias yoo xam ne dina génne suñu génération yi parce que tout ou tard génération yooyu ñooy teewi hip hop bi ñoom ñuy ñëw ñoom ñooy teewi hip hop bi parce que xam nga ni rappeurs yi fi nekk mënuñu dem ba am ay 40 ans 50 ans nekk ay pères de famille naan ñu ngi rap c'est impossible pourquoi pas ñu créer li ma fi wax nii nii yëpp créer suñu propre média am ay télé yoo xam ne 100 pour cent clip hip hop Galsen lay def créer suñu instrumental bopp. jàppale suñu bopp jàppale rappeur yi pour pourquoi pas duñu def loolu loolu mën nañ ko sama gars yi jàppalante la jël clan yi teg ko ci suuf di def ay featuring ak n'importe quel rappeur n'importe quel artiste dañuy jëmale kanam suñu opportunité la suñu avantage la pourquoi pas ñu mënuñu def loolu mën nañ ko nañ ñeme loolu sama gars yi songu loolu def loolu suñu arrangement la benn vidéo bu ndaw la woon rek def ci entre parenthèse wax sa xalaat maa ngi xaar commentaire yi maa ngi xaar critique yi parce que tamit mënul ñàkk Kenza Djib Gueule de Véchili dem leen fàtte bu leen fàtte tamit abonné suñu page Facebook Sénégal Musique Record wax sa xalaat la rek comme ni ma ko waxee rek dinaa xaar commentaire yi comme dinaa xaar critique yi sama gaay yëpp yëpp loolu la ñu wax ba beneen yoon li ma wax ni bàyyi leen ci xel bu baax a baax ñun ñoo mën a jàppale suñu bopp ñun ñoo mën a jëmeel suñu hip hop bi kanam leen ko fàtte sama gaay yi bàyyi leen ci bu baax a baax dernière chose tamit ma waxaat ko bu leen fàtte abonné suñu page Facebook Sénégal Musique Record di ngeen mën a jot bépp info ci ñun di mën a jot bépp info ci ñun di ngeen mën a xam lu bëri ci ñun di ngeen mën a xam tamit lu bëri ci suñu job ci lu ñuy liggéey daal sama gaay nañ leen def lu ñu wax ñun ñoo moom Galsen ñoo moom hip hop bi hip hop bi bu jëmee kanam ni ñu jëm kanam loolu la ñu wax benn parenthèse bu ndaw la woon rek sama gaay kon ba beneen yoon peace love je vous aime